Sénégal alternative moom allah kulli àll day am Yaakaar a perdu le il y aura une alternance Benno Bokk Yaakaar a perdu le pouvoir parce que le peuple s'est mobilisé pour dire non au troisième mandat ils doivent comprendre que c'est fini pour eux le pouvoir va aller au peuple aux jeunes et aux femmes qui aiment leur pays c'est pourquoi nous vous demandons de voter pour nous en Nous allons apporter des réformes. Nous allons mettre le pays sur de bons rails. Nous allons changer le système pour que tout le monde s'y retrouve. système yi bu loon yu ñu war a seere ñu seere leen yu ñu war a changer ñu changer leen système bi ñu yaatal ko xale yi ci ci loolu mën na nekk